سلامكما بالباك والمدينة دار السلام مكما بال آمين بدار فتاة توبى لمسكني دار السلام كما بالمكة والمدينة دار السلام مكما نبي آمين بدار فتاة توبى لمسكني دار السلام كما بالمكة والمدينة دار السلام نكما آمين بدار فتاة توبى لمسكني دار السلام كما بالمكة والمدينة طوبى دار السلام كما نبي آمن بدار فتاة طوبى لمسكني دار السلام كما بالمكة والمدينة طوبى دار السلام دار السلام دار السلام نبي آمن بدار فتاة طوبى لمسكني دار السلام كما بالمكة والمدينة نبي آمن بدار فتاة طوبى لمسكني دار السلام كما ماك المدينة نبي آمن بدار فتاة توبى لمسكنها دار السلام كما مكة والمدينة آمن بدار فتاة توبى لمكني دار السلام كما بالمكة والمدينة دار السلام يا ربي عاقل رجائي كلها أبدا بحرمة المصطفى المختار من مدري مختار يولا نتنا بحرمة المصطفى مختار من مدريا مختار يولا نتنا بحرمة المصطفى مختار من مدريا الملاك وسماء بحرمة المصطفى مختار من مدرع مختار خير الانبياء بحرمة المصطفى مختار من مدرع حرمة المصاب مختار فارو على الانبياء بحرمة المصطفى المختار من مدرع حرمة المصاب عدلال موي سماهم بحرمة المصطفى المختار من مدرع عدلال موي سماهم بحرمة المصطفى مختار من مدريا الملا موي سما ام بحرمة المصطفى مختار من مدريا عدنان موي سما ام بحرمة المصطفى مختار من مدريا مختار خير الانبياء بحرمة المصطفى مختار من مدريا mbooloo mi jaar loxo ca ko jukkal Muhammadu Rasulullaay jaar loxo loxo ca ko ñu màggal yonent bi نبيك المجتبى الحادي وسل بي علي عيب الآل بالتسليم وسرا لنبيك المجتبى الحادي وسل بي عليه بالآل بالتسليم وسرا لنبيك المجتبى الحادي وسلبي علي عيب الآل بالتسليم وسرا أمن خافور ليغفر به واستر بي سللي والتقفيني كل ما يدعو إلى السرر نبي خافور ليغفر به واستر بي سللي والتقفيني كل ما يدعو إلى السرر فتاه حوابلي فتحا قد أكون بي مداركا كل ما قد فات في سخري لبي وجهك صوفا بعاء عظيم لا يرى إلي واخرخ لي الحادات في كبرى خادم ربي استجب من بام ربي استجب من بام ربي استجب من بام ربي استجب من بام ربي استجب ولتدم خير الصلاة على خير الورى المصطفى صافي من الكدر لن اكتب صلاة بتسليم له ابدا في الآل والصحب راس الخلق والقدر يا ذا الخلق نبي في الآل والصحب هذا الخلق والقدر هذا الخلق بريء في الآل والصحب هذا الخلق والقدر يا ذا الخلق نبي في الآل والصحب هذا الخلق والقدر يا ذا الخلق ليوم مصدحم الأملاك والأمم
ليوم مسلم أملاك الأخلاق والممات.
ليوم مصدحم الأملاك والأمم ليوم مسلم أملاك والأمم ليوم مصدحم الأملاك والأمم الأخلاق والممات.
أملاك الأخلاق والممات.
ليوم مصدحم الأملاك والأمم ليوم مسلم أملاكي الأخلاق والممات.
لأومي مصدامل أملاكي والأمم ليوم مسلم أملاكي الأخلاق والممات.
نبي لأومي مصدامل أملاكي والأمم ليوم مسلم أملاكي والأمم ليومي مصدامل أملاكي والأمم ليوم مسلم أملاكي أملاكي والأمم ليوم مصدام أملاكي والأمم ليوم مسلم أملاكي الأخلاق والممات.
ليوم مصدام أملاكي والأمم ليوم مسلم أملاكي والأمم ليوم مصدام أملاكي والأمم ليوم مسلم أملاكي والأمم ليوم مصدام الأملاك والأمم يوم مظلم أملاك والأمم ليوم مصدام الأملاك والأمم
يوم مظلم أملاك أملاك
أملاك والأمم ليوم مصدام الأملاك والأمم
ku bëgg sëñ bamba jógal taxaw ca ku màgg sëñ bamba ku yëg sëñ bamba jógal màggal sëñ bamba jar na ko
لين ليوم مصدام الأملاك والأمم يوم مظلم أملاك والممات.
أمم ليوم مصدام ليس الأملاك والأمم يوم مظلم أملاك أملاك والأمم ليوم مصدام الأملاك والأمم أملاك أمم ليوم يوم مظلم أملاك والممات.
مصدام أملاك والأمم يوم مظلم
أملاك أمم اليوم مصدام أملاك والأمم
يوم مظلم أملاك أملاك والممات.
لن توبوا إلا الله وحتى توموا لا تفتن تاوس قلوبكم قومي مكاسفتان
لا يوافقكم ولا تدخل بكم قوم مقاسمة.
nan fa kulluna falyatub yarjo musadafatan مصادفة.
أستغفر الله أدخافا مداوى أبت الله أستغفر الله.
أدخافا أبا مضاعفة.
دونا أستغفر الله أدخافا مداوى أبت الله أستغفر الله.
أدها فل مضاعفة لن أستغفر الله أدها فالمضاعفة الله أستغفر
loxo ca kaw nu màggal xasaayit gi wax leen astaxfirullah adafal mu daawa abadallah ku jug taxaw ca kaw màggal Serigne Sall yàlla nga fekk déwén ku jug taxaw ca kaw jaayu màggal Serigne Sall yàlla nga fekk déwén leen astaxfirullah adafal mu daawa abadallah Astaghfirullah.
adafal Tawafal mudaa.
leen astaxfirullah adafal mu daawa abadallah adafal لنا أغذق الله أضعاف المدى وأبدا لا أضعافا لنا أغذق الله أضعاف المدى وأبدا لا
Astaghfirullah.
أضعافا Tawafal mudaa.
لنا أستغفر الله ربي الله.
أضعاف المدى وأبدا لا Astaghfirullah.
أضعافا Tawafal mudaa.
لنا أغذق الله ربي الله.
أضعاف المدى وأبدا لا Astaghfirullah.
أدحاف Tawafal mudaa.
لن أستغفر الله يلا.
أدحاف المدى وأبدا الله Astaghfirullah.
أدحاف Tawafal mudaa.
لن أستغفر الله أدحاف المدى وأبدا الله Astaghfirullah.
أدحاف Tawafal mudaa.
لما سكرت من الأجناس والخصم بما ذكرتم من ال...
من الأجناس والخزم
بما سكرت الأجناس والخزم ليس عن بما ذكرتم من الأجناس والخزم مما سكرت من الأجناس والخصم
بما ذكرتم صوت من الأجناس والخزم مما سكرت من الأجناس والخصم بما ذكرتم من الأجناس والخزم مما سكرت من الأجناس والخصم
بما سكرتم من الأجناس والخصم مما سكرت من الأجناس والخصم بما سكرتم من ال...
من الأجناس والخصم واخلين مما سكرت من الأجناس والخصم
بما سكرتم من ال...
من الأجناس أنا سبي مام سرين توبا مما سكرت من الأجناس والخصم
بما سكرتم من ال...
من الأجناس أنا سبي مام برم توبا مما سكرت من الأجناس والخصم بما سكرتم من ال...
من الأجناس والخصم مما سكرت من الأجناس والخصم
بما سكرتم من ال...
من الأجناس من بامبليلا لما سكرت من الأجناس والخصم بما سكرتم من ال من الأجناس آي من بامبليلا لما سكرت من الأجناس والخصم بما سكرتم من ال من الأجناس والخصم ما سكرت من الأجناس والخصم
بما سكرتم من ال من الأجناس والخصم
لما سكرت من الأجناس والخصم بما سكرتم من الخصم من الأجناس والخصم مما سكرت من الأجناس والخصم بما سكرتم من ال...
من الأجناس أنا سبي مام سرين توبا مما سكرت من الأجناس والخصم بما سكرتم من ال...
من الأجناس مام بامبليلا مما سكرت من الأجناس والخصم بما سكرتم minal الأجناس maam Bamba nee na mi ma sakartu minal ajnaasi wal qisami minal muridi ana soppe maam Serigne Touba mi ma sakartu minal ajnaasi wal qisami minal maam Bamba nee na mi ma sakartu minal ajnaasi wal qisami من الأجناس خادم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نبي الحمد لله الحمد لله نبي الحمد لله لما ما خلق دعوة من بعد ما كنت ساء فقر وساء دررا نبي عمدا يكافي مسيدا من أوف العذر ثم الصلاة على المختار من مدرا
في مسيح ثم صلاة على الغالب خادم خير البرية من باك ومبتسم خير البرية من باك باكر
تسم خير البرية من باك ومبتسم من باك خادم من دقساس حاما أجل قلبه والقلم حاما من بابا من دقساس حاما أجل قلبه والقلم حاما ku bëgg Serigne Touba min dëgg sensin xaama ajal xalbo wal xalamo xaama nabi min dëgg sensin xaama ajal xalbo wal xalamo xaama nabi min dëgg sensin xaama ajal xalbo wal xalamo xaama ana soppe maam Serigne Touba min dëgg sensin xaama ajal xalbo wal xalamo nabi min dëgg sensin xaama ajal xalbo wal xalamo xaama nabi min dëgg sensin xaama ajal xalbo wal xalamo xaama nabi min dëgg sensin xaama ajal xalbo wal xalamo xaama xaama min dëgg sensin xaama ajal xalbo wal xalamo xaama nabi min dëgg sensin xaama ajal xalbo wal xalamo xaama xalamu min dëgg sensin xaama ajal xalbo wal xalamo xaama nabi min dëgg sensin xaama ajal xalbo wal xalamo xaama xaadim foo masa aw ma fay taxaw sar ya ca kaw desil xalaat fu mu mën a doon Ahmadu Mba Ahmadu Mba balay sa foo masa aw ma fay taxaw sar ya ca kaw desil xalaat fu mu mën a doon balay sa foo ma sa aw ma fay taxaw soror ya ca kaw li sil xalaay fu mu mën a doon balay sa réew mi nga feeñe ñëpp a leen di ñee kañu añi fokk samaay xaadim dem nga sarsaara dem nga sarsaara loxo ca kaw dem nga sarsaara dem nga sarsaara dem nga sarsaara naar yey siyaara doomi doomi maam jaara yaa seexu baam ahmadu mba ahmadu bamba bàlle sama loor dina wet nekkal fii sunu wet naale boora fet ne ma rajaay cheikh ahmadu banba ahmadu banba ahmadu banba xaadim muy noor dina wet nekkal fii sunu wet naale boora fet ne ma rajaay cheikh ahmadu banba ahmadu banba candar jullem googatay dongo yaa ngi koy magal di ko roy bila alay ahmadu mbay xaadim lam yoroon ci may daa ca defal waay tay la gën a ay bila la tixaay bamba du jeexal tay la gën a ay xaadim lam yoroon ci may daa ca defal waay tay la gën a ay bila la tixaay bamba du jeexal tay la gën a ay sëriñ bi def na fa jeewal lu kenn dul siiwal sëriñ bi def na fa jeewal lu kenn dul siiwal badar la teewal minti samaay ku tax badar jóg ku tax badar jóg nga noo demee baanil ximaay la bi def na fa jeewal lu kenn dul siiwal badar la teewal minti samaay yaa tax badar jóg yaa tax badar jóg kon am nga noo demeek baanil ximaa nabi def na fa jeewal lu kenn dul siiwal badar la teewal minti samaay yaa tax badar jóg yaa tax badar jóg kon am nga noo demeek baanil ximaa nabi def na fa jeewal lu kenn dul siiwal badar la teewal minti samaay ana soppey maam borom tuuba loxo ca kaw nu màggal jàmbaar ja sëñ tuuba xaadim seexal nga ay seex may leen dul ja seexal be ay seex yaa seexu baamba Cheikh Ibra Fall maam Thierno Cheikh Mandumbe Cheikh Anta Cheikh Massamba maam Mor Jaara Mbay seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal be ay seex yaa Seexu Bamba Sëriñ Daam Abdourahman Cheikh Massamba Diop Sam Cheikh Adama ak Cheikh Mababou Gueye seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal be ay seex yaa Seexu Bamba Cheikh Darou Hassane Ndiaye Cheikh Amsa Toog Cheikh Sadio Mbaye Cheikh Marouba Gueye Cheikh Mor Maane Mbaye seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal be ay seex yaa Seexu Bamba ana soppey Cheikh Darou Hassane bayu Serigne Bay Faalo maami Seex Mariamu Ndiaye seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal be ay seex yaa Seexu Bamba Cheikh Issa Dieng Cheikh Jéeri waa daan su Babacar Cargaan Tafsir Buuba Silla seexal nga ay seex may leen lu dul jeex ñu seexal fee ay seex yaa Seexu Bamba ku bëgg Cheikh Darou Assane Ndiaye jógal taxaw ca ko magal Cheikh Darou Assane jar na ko jóg leen taxaw ca ko jaay magal Cheikh Darou Assane Ndiaye jar na ko
nabi seexal nga ay seex may leen lu dul jeex ñu seexal fee ay seex yaa Seexu Bamba Cheikh Modou Lo Dagan Cheikh Sira Lo Sanna Makhtar Mbay Kere Modou Jaw Pa seexal nga ay seex may leen lu dul jeex ñu seexal be ay seex yaa Seexu Bamba Cheikh Ibra Diop Masar Cheikh Ali Seck Wanaar Nguuda Kan Joloor Xawsu Kan nabi seexal nga ay seex may leen lu dul jeex ñu seexal fe ay seex yaa Seexu Bamba Seex Balla Faali Jang Seex Modu Faaja Mañang Ali Juuf Lambaay Modu Géey Baay Daam seexal nga ay seex may leen lu dul jeex ñu seexal fe ay seex yaa Seexu Bamba Seex Masamba Xari Jóob Souley Diagne Omar Jóob Ahmadou Ndiaye Jóob Sëriñ Mbàkke Buso Gédé seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal fe ay seex yaa Seexu Bamba ana soppe yi Sëriñ Mbàkke Buso Sëriñ Omar Busook Seex Muusa Top Ahmadou Ndiaye Jóob nabi seexal nga ay seex may leen lu dul jeex ñu seexal fe ay seex yaa Seexu Bamba Seex ma Samba Xari Jóob Seex ma Silla Ndaak Seex Moor Cuun Bara Saar Omar Cuun nabi seexal nga ay seex may leen lu dul jeex ñu seexal fe ay seex yaa Seexu Bamba sëriñ ma ñaaw si la sëriñ gu yaar jëng njaase si sa baayu sëriñ moor mbay seesa nabi seexal nga ay seex may leen lu dul jeex ñu seexal fe ay seex yaa Seexu Bamba ana soppey seex isaa jenn sëriñ Mbàkke Buso Seex Omar Buso loxo ku ko def yàlla na nga gudd fan nabi seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal fe ay seex yaa Seexu Bamba jug delloo njukkal sëñ Touba yàlla na nga tàggoog tànk yu métti jug leen taxaw ca kaw sargal sëñ Bamba sëriñ nit ñi aca
tapi seexal nga ay seex may leen lu dul jeex seexal fee ay seex ah, seexu Bamba seex jiiri waa daan sugu Serigne Afe Mbakke Seex Balla Coro Serigne Seex Coro Seex Muusa Top